nekk ci ay gurpi yu xata xata xata xata xata yàlla ñu mu am ay nit yu am valeur yu dégg jamono yu xam àdduna yu doon ay sénégalais am ci kenn koo xam ni mu nekk jëmu jiitoog tudd Cheikh Ahmadou Bamba Dieng ñun ñëpp suñuy yaakaar xawoon na tas ndax ci li ñu gis ci réew muy parparloo bu mu tegul fenn kenn ku nekk naan maan moom mu fàtte boppam ci ay diir te mu ànd ak ku ne te ñoo doon man pour ñu dox ngir Sénégal jub ngir Sénégal ñoŋ ngir senegal baax ngir Sénégal defar mais le constat ñun ñëpp ñoo ko gisandoo toujours fourage dans les idées lu waral lool mooy ndax nit ñu dëgg dañoo ci biir réew ndax nit ñoo xam ni alal alal da leen a jaralul lenn man damay toog ba si yàgg di wax ne les acteurs politiques les leaders politiques parfois ñoom ci seen biir war nañuy xoolante seen biir di bàyyante xel ndax li waral lool mooy askan wi dañoo yàgg a nax dañoo yàgg gëmloo loo xam ni kenn ci ñoom wala ñenn ci ñoom la ñuy wax gëmlu waaye jëm ji toog di Cheikh Bamba Dieye bokk lu ko sonal ci àdduna lenn la mooy am njub waaw léegi réew moo xam ni nag bu ñuy tànn ñu jël ñu njub ñi teg ca côté daal di jël dóorkat yi ak pexekat yi teg leen ci kanam réew moomu mbaa dana ñoom kon sénégalais nañu delloo si sunu xel ndax sénégalais boo interpellé ci mbedd mi lan la la wax Sénégal c'est Cheikh Bamba Dièye lu ko tardeel je vais être avec tout lu ko tardeel parce que dafa jub waaw kon ñun paree guñu waaye heureusement la masse silencieuse bi doon noppi ñoom ñoo jug nag bëgg a fësal ak jug ci miim réew moo tax ñoom ñu ko yow yaay doon suñu candidat ma wax leen ko ndax du leen ko wax kii mooy candidat yoonu murit kii mooy candidat Alaaji Malick ma wax leen ko ndax du leen ko wax kii mooy candidat bu Kunta Njaasaan kii ma wax leen ko ndax du leen ko wax kii mooy candidat Limaamul Mahdi xam nga lu tax ma wax ni mag ñu baax ñooñu kii mooy seen candidat ndax la ñu jëmbatoon ci réew mi saay-saay si bëgg koo nërmel moom moom la jël te taxawaat ak moom te insha allah dana ci ndaw ñun nag lu réew wax jëf lañ gën a mën mënuñu wax jëf lañ gën a mën waaye damay jàpp ni daal Cheikh Bamba Dièye sa nawle yi toog doon ay gor bu ñëwee wuy si la du parce que da nga leen a dàq jàng sa jikko ju rafet moo tax ñu wuy si la